aw di nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di ziar ñëpp bon di jégalu ñëpp aussi ci dérangement bi bon bi initiative bi ñu amoon pour ubbi ko initiative bi du xëy na passion moo ci jiitu d'abord dañu am passion ci li ñuy def parce que sport dafa mës nekk nekk ñu bëgg-bëgg donc bu loolu yëpp weesoo bu ñu amee engagement ubbi ko mooy bëgg cee dimbali suñu bopp dimbali ci bépp jullit bépp doomu aadama parce que ku ne xam ne ne sport amul prix sport amul prix amul njëg maladie mën naa ne tawat yi gën a aju ci kaw suuf sport moom moo ko mën a saafara. waaw coach Laye loolu moom leer na dañu bëggoon bala nga avancé ci loolu. nga wax ni kat mooy coach Laye. waaw coach Laye dafa nekk benn benn benn benn booy boo xam ne peut-être comme li ma la wax sànq moo ci nekk passion du woon lu dul sport sport moom mës a nekk sama passion bon comme ni nga ko waxee léegi xëy na Saal Thiès boo nee boo boo taxawee ne coach Laye ci ñaari nit ba ko ñetteel dinañ xam kan mooy Laye. parce que yàgg naa ci millior bi maa ngi évolué ci milieu bi dëgg la lu ma am presque ci sport laa ko jëlee aussi bari na lu ma xamante ci doomu aadama ci sport laa ko jëlee bon coach mooy benn genre nit boo xamante ne xaritu ñëpp la waaw xaritu ñëpp la. macha ñëpp la fii. comme li ma wax rek tey dafa nekk mu tombeek un an bi ndax le 4 laa ko ubbi woon. le 4 laa ko ubbi woon ma jàppoon date bi ne lii de mu ngi yàlla dimbalee li ñuy mbébét bu soobaa yàlla bu sottee at mu jot rek dañ koy feete waaw le 4 laa ko ubbi woon. le 4 kon Kourchoulaye mhm. ñun bu ñu la déggee ak popularité bi nga xam ne moom la salle bi am yëpp. Mhm. un na un yàlla. Ah, bi ndax euh, am âge. Mhm. boo xam ne ci la limité. tamit am na góor am na jigéen naka la demee. waaw amul âge âge nag moom amu ci peut-être xëy na ba naan adolescent xale la ñuy éviter rek ndax xam nga xale ku mel ne xale mais bu amee ku ko accompagner bu ñëwee mën na ci gis boppam mais à partir de 10 ans ba 70 ans ku ñëw boo ñëwee di nga fi gis sa bopp ndax bépp travail boo bëgg boo ñëwee dinañ la ci jàppale dina am mag dina am ndaw góor jigéen ñëpp la ñuy liggéeyandoo. Mhm. dañu gis ne dafa am dafa mel dafa am décalage dafa am mhm. heure boo xam ne ci la xale yi di ñëw mhm. am heure boo xam ne ci la mañ di ñëw dañoo gis mañ ñu bari taamu saal waaw waaw loolu am na parce que maa ngi démarré sama sama sama ouverture dix huit heures et demi dix huit heures et demi laay démarré bon dina ci am ñoo xam ne dañuy def ay cours de renforcement comme mag ñoo ñi nga wax ci la ñuy am temps peut être wala heure boobu day fekk gym du démarré parce que dama am ñaari heure gym par jour 20 heures ak 21 heures bon avant vingt heures ak vingt et une heures képp ku ci ñëw boo ñëwee dinañ la mën a jël am sa temps def la renforcement bon xool aussi li nga bëgg ñu toppatoo la ci bu baax a baax. waaw heure de gym bi première heure bi mi ngi démarré vingt heures et demi sama deuxième heure mi ngi démarré aussi vingt et une heures et demi waaw à part loolu am na yeneen heure yoo xam ne ay renforcement la même bu ñu defee gym ba pare sax am na ci ay Baay Faal yu bari yoo xamante ne bu ñu ñëwee dañuy jël step wala chaque jour ak benn travail bu may def ak ñoom di def ay renforcement. waaw loolu moom après jum toujours day am après jum toujours waaw. léegi coach Laye bala ñoo jeexal nag suñu question réponse mhm. ndax comme ni ñu koy defee saa su nekk rek. Mhm. bëgg nañ xam paiement yi ndax cher na wala cher bu ñu paree nag nga enchaîné dugal ñu ci njëriñu sport. Mhm. parce que yaakaar naa ne ku ñëw. Euh, fay xaalisam. ñëw seet si course Laye pour pour defar yaramam. am na ay raison waaw bëgg nañ tamit xam raison yi. waaw paiement yi mooy li ma wax rek salle bi bi ñu koy ubbi dañ ko ubbi woon rien que pour jàppale suñu bopp jàppale ñëpp paiement yi wax dëgg yàlla woyofal nañ ko ba sincèrement parler 500 francs lañ ko def entrée entrée 500 francs lañ ko def boudé abonnement bi def nañ ko 10 000 francs mom mo lay yobbu un mois amul sax ay inscription ay ak ay abonnement inscription ak abonnement bi lañ bolé def ko 10 000 francs mo lay yobbu un mois 500 francs la xam nga bo ñëwé nak lépp a ngi ci biir bo ñëwé do soxla ndox bo soxla dara lépp ngi ci biir sincèrement parler waaw loolu mooy man mooy waaw mooy waaw. bon njariñu sport nak man xëy na bu ma koy wax sax dama naan damay wax li nga xamante ni li ma ci xam la. wala lima ci yaakaar mais sport su ma dox toogee fii ba suba di wax njariñam du jeex du jeex ndax kenn ku ci nekk da nga koy xool sa bopp bari na ci ñoo xam ne bi ñuy ñëw li ñu indi woon bi ñu ñëwee li leen tax a jóg bu dee dafa amoon lu ñuy indi pour dàq ko dàq nañ ko bu dee dafa amoon lu ñuy lu ñuy dañoo ñëw pour am lu ñu lu ñu indi fekk nañ ko fi maanaam jël si nañ ko mën naa ne képp koo xamante ne sport moo la tax a jóg te xam nga li tax sport tax laa jóg ndax premièrement digle la digle suñu borom la tàggatu jaamu yàlla ku ne xam ne ni ci la bokk ndax kuy tàggatu ba mën a ànd ak wér di nga mën a taxawal sa jaamu yàlla benn première chose boobu moo ci nekk ñaareel bi mooy bu la yàlla nattoo nga feebar feebar ku ne lay dal ñu ñëpp lay dal li ci gën a gaaw te mën ci ëpp ci solo sport sport moo ci ëpp solo te moo ci gën a gaaw. waaw loolu nga waxee rek bu mm-hmm. ñu euh, nga tëj remercier sa ñi nga waaw man li ma waxoon ci commencement bi loolu laay tëjeewaat mooy sant laa ubbeewoon te sant laay tëjeewaat ndax xëy na lii initiative bi laay moo ko taxawal mais bari na ñu nekk ci ginnaawam ñoo xam ne mënoo sax expliquer xëy na sax dañuy wax dañuy dañuy dañuy nekk sa nopp yi toujours naan la fexeel ba ma sàmba wala bu ma demba kenn xam ne nii la demee du laay kese am na ñu bari ñu nekk ci ginnaaw laay ñoo xam ne ñoo jàpp ci ay tànku laay ñi ñoo téye ci ay mbaggu ba li yëf yi mën a taxaw te boobu ba léegi bàyyiwuñ mooy ñii ma nekk ci sama ginnaaw ñëpp am na ci ñoo xamante ni fi ñuy jóge tey su ma la ko waxoon nga ne ñii lan moo leen jaral lii ku ci mel ne aw mi ngi jóge ba Seras romb na ay saali saal pour mën a ñëw fii am na ñoo xam ne taaxi kaw fu nekk mais xam nga loolu bu loo yàlla dimbalee nga am ñu mel noonu te defaloo leen dara ndax dama leen koy wax toujours bu dee sport wala entraînement foo dem di nga ko fa fekk mais boo amee ñoo ne dañ la bëgg te yàlla tax di la ñëwal foo nekk ñu fekk la fa amoo seen fay man ñooñu laay ñii laay sant ñii laay gërëm. waaw dañuy faral di gis tamit ay mag. gis nañ fi ay imam waaw mooy laay nag comme li ma wax rek laay laayu ñëpp la. laay laayu ñëpp la ustaas yi day day sant dañ may bëgg te yàlla tax. te duma xam aussi lan la man defalu leen dara ñoo may bëgg rek te yàlla tax. ustaas yow ku ne xam ne ustaas wàdd moom nag bi ma yàlla di booleeg moom yàgg na du saal bi mais dafa feddali kóllëre bi bi mu ñëwee toujours jàpp taw a bàyyi waaw Oustaz Moussa Wade ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni du ñuy sax bañ ku leen tudd ku ci mel ne yow mii waaw depuis bi ma yàlla booleek léegi ba yow ba léegi yaa ngi ciy jàpp xam nga yaa ngi ciy jàpp ba pare xam nga sant yàlla daal di sant yàlla yàlla dolli xew waaw ñu ñu delloo ziar bu baax a baax maa ngi lay nuyu di lay ziar man maa ngi tudd Mouhamed mbay dëkk fii Cité Senghor waaw man nag sportif laa yàgg naa ci lool waaw ndax man Touba laa bàyyi ko mais foofu laa doon defee sport mais bi ma ñëwee ba fii dama ñëwoon di continuer def sport di romb fii chaque jour mais dafa am sama benn waay boo xam ni ñoo bokk fee ci marché bi di liggéey moo ma booleeg laaj waaw. gis. naa fi njariñ bu baax wax dëgg yàlla ndax euh, bi ma fii ñëw wax dëgg yàlla ëppoon naa nii maa ngi doon poté ay cent dix kilo te wax dëgg yàlla boobaak léegi. macha allah maa ngi baax maa ngi lu ma bëgg def maa ngi def kon espoir wax dëgg yàlla buñ lay wax njëriñ ñi mën nañ fee fanaan. macha allah ñu ngi lay a baax di la ok merci wax dara ba nuyoo ba pare maa ngi tudd fii jàmm gën maam man boo gisee ma taam fii mooy maanaam espoir dafa nekk loo xam ne moom mooy premier médicament premier médicament bi man safar camion laa damay xëy tourné lu ma toll 400 kilomètres takk samay daal dem daw yi te damay ànd plus de 10 personnes kenn ko si def man rek maa ko si def espoir moom ko may kon moo damay remercier laay di ko gërëm parce que li mu def nii yombul li dañ ko si encouragé di yàlla affaire bi jëm kanam loolu rek la. merci ok merci. gisee coach laay tamit man dama ci am wàll wax dëgg yàlla damay témoigner ci moom parce que nag ku ne xam na ne sport dafa bokk ci wér gu yaram euh, li may témoigner ci moom rek mooy sama sœur bu ñu naan maam Fatou moo ma booleeg moom vraiment bi ma booleeg moom jamono yooyu sonnoon naa trop parce que poids bi xam ngeen ni baaxul ci ñun tànk yi di metti macha allah ma ñëw coach laay yaru na baax na yiw na surtout ma parce que man bu may ñëw damay sol sama équipement pare teg sama abbaay sama kaw mu xam ne mag laa jox ma cëru mag vraiment te nee naa la ba ma commencé ci moom ba tey njëriñ rek laa ci gis kon maa ñi nga xam jigéen ñi nga xam ne fi laa leen fekk ak nga xam ne ñoo ma fi fekk kon wax ci turu jigéen ñi ñun ñëpp dañuy maasandoo gërëm coach vraiment ndaxte liggéey bu mel ni boo ko yoree waroo ree waroo bew te moom ñaar yooyu yëpp dalu ko ku jox respect nit la ku jox ci nit la kon dañ koy ñaanal tey la am un an ñu koy ñaanal at bu jot muy gën a yokk macha allah ndax nee naa la lu la yar mayul yar yaree diku moo la koy xañ te vraiment moom mën na am lu ne ci lii muy def parce que dafa yaru may woo sama mu mag ñi troisième asi comme man ñu ñëw ci course laay parce que sport dafa am solo day maye wér gi yaram vraiment bu ñëwee ci moom dina leen dimbali ñu jotaat seen wér gi yaram vraiment te duñ ci am benn loo xam ne dina leen naqari ndax nee naa dafa yaru laay dafa cool macha allah yàlla na ko yàlla defal jàmm man sama xalaat ci Cousoulay d'abord maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa saal bi di nuyu laay ndaxte saal bi wax dëgg fa yàlla saal bu baax la ndax man li muy wax nii dama ko koy dëggal passé naa saal yu baari seeraas laa jóge ba fii mais bi may ñëw ak nii ma melaat nii wutewuñu ni ma ni ma melaat nii wutewuñu wute nañ mais laay daal liñ koy ñaanal daay mooy nit koo xamante ni nii alal fëkk ko nit ku baax la te wax dëgg fa yàlla boo ñëwee fii da lay defar ba nga baax macha allah man moom kontaan naa ci moom te waa saal bi kontaan nañ ci moom. te bu dul dara yar gi rek baax na dafa yaru bëggewul te alalam du ko boole kenn saal bi moom mooy meilleur bi fii moom wax dëgg fa yàlla moom mooy saal bi nga xam ne moom moo gën a meilleur dem naa saal bu nekk nag mais saal bi daal man moom laa taamu ndax mooy baax baax bi. mais asalaamaaleykum madame Camara maa ngi lay ziyaara Koutoullaye xanaa kontaan ci moom rek ndax saal bi ginnaaw yàlla mu fi ñëwee yow yaa tax. Euh, te dama doon xam nga rek di feebar chaque jour di ñëw sa hôpital xam nga nga may perfusé def yëpp nga xëy na ma kaay ñëwal ci salle bi tamit boo fi ñëwee tamit ah, gis naa ci avancement parce que tamit sama yaram wér na sawar naa amuma benn problème di ko ñaanal nag gudd fan ak wér moo xam li mu bëgg ci saalam bii li yàlla na ko yàlla defal ak Seydina Muhammad li mu mëbët ci ñun dem ba yàlla defal ko ko ci barki yonent bi merci beaucoup